jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm gis ngeen fi ñu nekk nag ni mu yaañee lool ngeen war a xam ni ñoo ngi ci palais wu euh, suñu sëriñ euh, ñu koy wax Ahmed xalifa ñas mu dalal ñu nag dalal bi yaatu lool ñu ko ci sant di ko ci gërëm du nuyu mbokk internet yëpp di ko bàyyi mu nuyoo ñu waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy fi indi ziar nañ la bu wér. ñoo ko déggandoo euh, ma sëñ bi dañoo toogoon lu yàgg nag gisuñu la des fois ci yenn débat yi wala loolu ñu lay laaj ci lan nga nekk yaa ngi ci jàmm nit ñi namm nañ la. waaw jërëjëf loolu mun naa nekk lu réciproque mais xam nga débat bi léegi dafay amatul débat dañuy am ay niveau baa yoo xam ne ay apostrophanteeg ay yooyu xam nga yooyu mun mu bokk daal. Mm-hmm. Euh, au débat intellectuel amu fi. moo tax léegi nga xaw a daw écran yi tuuti. non dawuma ko mais am loo xam ne mënuma cee bokk bu ñu amee niveau élevé mën naa ci dugg bu li may gis nii ñu di ko def yooyu moom du yàgg ma bokk ci. dafa nekk de bas étage daal. Mhm. noonu la demee ba tax na des fois bu ñuy déglu bu ñuy dégg ci diine loo xamante ne daf ñu xaw a jaaxal dañuy faral di seeti kilifa yu mag yi te bu ñu nee kilifa yu mag yi mënuñu la cee génne ndax xam-xam bi euh, yaatu na macha allah jamono ji ñoo ngi waxtaan lu bari ci doom bu xaraam ak boo xamante ni euh, doom bu juddu ci sëy la ñenn ñi naan warul am droit yi ñenn ñi naan warul doonu ak dafa am limite yoo xamante ne l'islam da koo tegal ñu bëggoon cee xam euh, ca sa xam-xam nga yokkuñu ko wàllu ndono nit ku ne moom alalam ku ko neex dugal ca ku ko neex génne ndax suñu diine may na nit ku ne sa ceeru alal sa alal nga xaaj ko bu doon ñetti taabal yi benn bi yaa ko moom mën nga koo may ko la dul doon te mu ëppale sax koo xam ne la doon c'est que ñoom niñ ko jàngee daf ko si nit kii mën na am doom bëggul doom ja doon ko am na waa boo xam ne bu ko defee ma ñax wax liaan bu am ne am na sikk ci ne jurul jurul waa ma ndaw si am na droit de moom moom ca jàkk ja am na cérémonie boo xam ne bu ñu ko fa ba defee waa ji dootu ko doon xale bi dootu ko doon doonte le doomi jabaram la ba noppi ndaw sax daf koy araam faw ci man loolu ban fànn ci ban côté la. non dafa loolu la ñuy wax liaan liaan ñi mu ngi ci alxuraan description wu mooy koo xam ne dafay sëy ak jabaram mhm. mu jékki-jékki ne doom ji ne doomu jabar ji jabar ji moo ko ko indil mais moom dute na ne doomam la moo wax ne du doomam ñu ànd ci jàkka ja ku ci ne taxaw rëbb morom mi bu dee moo jur wala bu dee jur cérémonie doom ju am ci moom kooku du doon jamais bu yeboo nag muy mu nekk doomi jabaram donc nit ki mën na déshériter doomi jabaram doom joo xam ne ñëpp jàpp nañu doom mën na ko déshérité kon xam ko génn ci alal ji mais mën na ku bokkalul dara mu yëkkati ne may na ko ceeru alalam walla genn wala ceer bi wala dixième ceer bi te loolu mën naa ëpp donc borom alal amul euh, dagan daganul borom alal lu ko neex lay def ci ceeru alalam la ca des la ñuy doon waaw te kenn kuñ may ceeru alal moo xam jigéen la moo xam góor la moo xam ku ñu wax ne doom la wala du doom ak yooyu yëpp dafay nekk largement suffisant donc l'islam may nañu fu ñu mën a rattraper yenn yi te kii ma la wax kooku rek mooy doom joo xam ne mën nañ ko tuddee doomu xaraam te du doon mais yeneen kaa yi ci des yëpp mën nañoo doon ndax lislaam dafa def yoonu ilxaaq te mooy reconnaissance waaw dañu ne képp koo xam ne nit ki joxoñ na ko ne diw mii sama doom la butul ko ay seede bu amee ñeent fukki fan kenn weddiwu ko kooka dafay jël santam te du koy donn bu yeboo mu nekk ko am cinquante ans waaw duñ ko laaj. donc bu judduwul wax ne du sëy fekk sëy la ci nga yi ñëw ci jàkka yi loolu moom moo dul sëy. jàkka yi lañ fay ne dañ fay takk jabar loolu du takk jabar loolu ñaanal sëy bi ñaan yàlla pour sëy bi baax parce que bi ñu laata dem ca jàkk ja lañ jokkalante ca kër ga. moo xam ay may gu njëkk la moo xam ay warugar nuñ ko mën a tudde loola mooy can dëgg-dëgg te di moment que ñaar ñiy sëy d'accord nañ wala bu dee ay mineur lañ seeni parents wax ndax ba d'accord loola mooy sëy lañuy ñuy defi nag ca jàkka ja loola ñaanal sëy bi mu jubla la ñooña mënuñoo dogal sëy bi et la preuve que mënuñ koo tas benn imaam mënul ne kat sëy bii maa ko mayoon léegi neexatuma tas naa ko amul imaam bi amul boobu pouvoir kon imaam bi du mooy dañuy nit ñi dañuy am lu ñu tuddee lu am ay tur te fekk nekkul loola mën naa la jox exemple xam nga temps yi gis nga jébbalu bi euh, ibaadu yeeg salafus yi jébbalu ci Euh, confrérie bi nga xam ne moom lañ daan xeex ci màggalu Touba Ibadu Rahman yi toog nañ jë cérémonie boo xam ne sëñ Bass Abdou Khader fekkee na ko bañ ko defee euh, dañoo wax ne léegi lépp benn la jullit ñi unité islamique di maanaam ni daal dootuñ xas kenn dootuñ ne eh, kii baaxul dootuñ ne nangam nangam nangam ki nangam waaw euh, fii Ahmed loo euh, keroog dem na Grand Théâtre lañ fa doon wax yëpp euh, kii bi xolaasa bi moo di ne lañ cey jëlee mooy mu ngi bokk te wax na dëgg ndaam benn quartier la ci Touba fa la dëkk ay waajuram ceeb euh, ci ñi sañ ci Touba ci lañ bokk te noonu la amanteeg waa Tiwaawan noonu la amante ak kër sëñ Abba man mii am na sama doom yi nga fekk fii léegi euh, Seex na Marème Lo mii seen maam xaw ma bàjjan lay doon ci moom wala jigéenam donc même day am ak man parenté indi mais bi mu ñëwee ñoom comme dañ daan xas tariixa xasaale nañu mboolem ñu bokkoon ci tariixa léegi nag ku ci ne wax na mbokk ci deret ba ñu jël léegi mbokk deret di yëkkati ko loolu nag li ko indi bind naa ci benn article moo di ne euh, li xewoon ci communisme communisme mi doon dox di am parti euh, parti communiste bi nga xam ni Moscou moo doon seen capital nga xam ne fa la ñuy jëlee ay instruction fa la ñuy jëlee seen idéologie fa lañ koy dem di ay congrès waa ci différentes réunions keroog ba nga xamee ne Moscou ci boppam weddi na communiste mbooleem parti communiste dañoo daal di deewandoo salafisme nag dafa dee ca Makka ca Riyad fa buur ba ne moo ne moo ko rey jàpp sëriñ si nga xam ne ñoo doon euh, radicaux yi jàpp leen tëj leen ñooñu dootuñ génn ba ba ñuy dee ñu seet na ñi nga xam ne am nañu raisonnable nañ ñin ñu kii lañ yu mën a dëkk léegi nag Arabie Saoudite moo leen jox ndigal ne leen arrêté leen soo fi yànkee maanaam euh, confrérie yi ngeen di xas wala dootuñ leen jox benn dërëm te boobaa it yi mën nañ la jël si yóbbu leen Guantanamo loolu nag moo indi position bu bees bi nga ci ibaadu yi Sénégal dañuy maas la ñëpp ibaadu mais ibaadu yi seeni kilifa seen kii daf euh, seen référent dafay delloo jëm Pakistan ci ñi wax jamaat tabliix ñii nag ñoom di li loola maanaam waa li ñuy wax waa alfalaax yeeg moo xam soninke yi moo xam tukulóor ñooñu seen marja ma nga jëm ca ña fa remplacer benn base ak Ousseymine waaw ci Arabie Saoudite foofu la seen kilifteef nekk ñu jox leen instruction ne leen changé leen discours wax leen ni ñëpp wax leen ne suufi yi ñu baax lañ ñu nangam lañ nangu leen seen i daraja ak seen ak yëpp seen siyaara xabru yeeg yëpp te loolu siyaara boobu sax dañ ko defoon ne da ngay jaamu xabru bi mais loolu yëpp weddaat nañ seen bopp maanaam dañoo tuub daal ñu ñu génnoon kii lañ dañoo tuub léegi yal na yàlla nangu seen tuub. maanaam dañoo tuub cest à nekk ñu woon ci yoon. évidemment parce que lu tax mooy indi li ma liñ tuddee sunna du sunna am na soxna si loo xam ne pour expliquer ko dafay gudd mais dama bëgg rek yow nga jël boo jógee tey fii nga jël sa téléphone dem sa Google nga def. bataille de Karbala 680 la ci li ñu reyee Ousseynou mi nga xam ne mooy satu yonent bi doomu yonent bi moo ko jur fekkoon na ñu posoon Assane magam bañ dajeeg ñoom Karbala ñu faagaagal leen ba kenn ku ku ku ku bokk ci yonent bi ci Ousseynou desul 680 kan parce quatre 680 Euh, gannaaw bi quatre xalifa yi passé six cent quatre-vingt ci la euh, Muawiya bi nga xam ne dafa dissident woon créer benn euh, dynastie capital bi nekk Damas Syrie Dimashq kooku nag moo dee six cent quatre-vingt doomam bi ñuy wax Yazid yaay ji chrétienne la woon amoon na sax église ci biir palais ba moom Yazid mooma mu ne mu ñoom duñ seen nguur du mën a taxaw feeg ray ñu ku bokk ci yonent bi ak ñi daan wax ak moom li kii di di addis ak yeneen biñ demee karbalaa xeex gañe leen faagaagal ñooy dagg boppu Ousseynou bi indi ko Damas ñu yëkk ko ci penc mi bi loolu amee ñu gis ne am na ñoo xam ne demu yoon Karbala te am na aussi ñu rëcc yoon Karbala mais ñëpp a ngi Medina fi yonent bi sallallahu alayhi ak Fatimatu mi nga xam ne moo doon doomam ak soxnaam yi ñu ñëw Medina en 683 trois ans après Karbala ñu yebal leen fa yebal fa ay euh, ñoo xam ne chrétiens yi ñoo ci ëppoon ak quelques musulmans chef de kii ñu ñu may leen Medina Munawara ñetti fan ñuy euh, tëddee jigéen ña ci kanam seeni jëkkër ak seeni baay seeni doom di ba pare rey ñooñu rey góor ña ba góor ña jeex bi loolu amee jigéen ñi ëmb ca déwén sa junne nit juddu ñoo xam ne ñële ñoo ñoo leen jur donc loolu li mu indi mooy euh, yoonu saa mi ngi fi jógee six cent trente-deux xam nga loolu euh, donc boo jëlee euh, quarante deux cinquante deux soixante deux quatre vingt deux ci quarante rek après yonent bi trace yi fi bàyyi woon yëpp ñoom yàq nañ ko lakk nañ téere yi rey nañ nit ñi ba pare yonent bi dafa ne woon bu ñu jël euh, bu ñu jël ay waxam hadis di ko bind ndax dafay bañ ëllëg mu dem bañ teg ko yemale koo ko waxi yàlla wala ñu considéré ko comme waxi yàlla di ko jaawale ak alxuraan dégg ñoom nag ñii salafis yi lijjanti nañu ak benn horloger albani albani ku dëkk albani mooy ci dëkk wax ne moog Italie ñoo tax albani boobu nekkoon horloger di defar montre ci kii ci Damas ci Syrie dem nañ ba génne na ñu mool ko six cent mille hadis six cent mille hadis yooyu man man naa wax ne cinq cent cinq quatre-vingt-dix mille yëpp cinq cent quatre-vingt-quinze mille yëpp ay fen la dara amu ci dara du ci dëgg waaw dañ koy kii xam nga ma jox la exemple léegi bind nañ ne yonent bi moo dañuy fen de ñu ne yonent bi waaw waaw yooyu ñoom yooyu kii salafis yi booy cabinet mm-hmm. maanaam nit ñi tey bu ñuy defar cabinet seen kër yi cabinet yi bu mu jublu penku bu mu jublu xarfu parce que bu jubloo penku yaa ngi jàkkaarloo fi kaaba gi nekk di saw walla di def leneen mm-hmm. dégg nga su fekkee ne contraire bi la nit kaa ngi jël ay taatam di ko wër jublu ko foofu yow eh, dawaa loolu yéen di waxu ko mais dama lay war rek exemple grossièreté yi nga xam ne moom la ñu génne wala ñu ne la am na weñ boo xam ne bu doo dooloon tey ci ataaya ji di tëmb nii doo amoo doo ko doo ko jël seppi ko sànni yonent bi ñoom ci seeni fen yi so ñu ne da koy dugal ci biir puus ko sa baaraam ba mu toj ci biir ataaya ji nga boole ko naan ko ndax ndax day am feebar day ànd ak feebar yoo xam ne boo ko seppee feebar yi daf waaye boo ko tojee ci biir doo si feebar yi ci ay fen yu fenal yonent bi mm-hmm. loolu mooy li gën a ndaw di indi ay xam-xamu ñetteeku maanaam di ko wax ne dafa dem euh, kii mm-hmm. koo xam ne dafa dem euh, gannaaw kër mm-hmm. naka lay euh, jëlee xeer mm-hmm. pour nettoyer euh, gannaawam ay taatam daal mm-hmm. waa di wax ne xeer wa warta réeg warta gudd ak warta gàtt warta nangam yooyu dañ cee génnee mm-hmm. ay hadis yoo xam ne yëpp ay foo la du ñu wax lu yonent bi yoo xam ne vraiment indi yoo xam ne dafay tagg seen buur yi waaw mais parce que ñi ñuy déggee sunna mooy lu yonent bi wax gannaaw alxuraan lu yonent bi wax euh, loolu lañ tuddee sunna mais yonent bi comme ba mu fi jógee ci saa si ci biir quarante yi faa gaagal nañ ñooñam ay ay saabaam yu mag ay kii donc loola amul loolu ñu wax ne hadis la du dëgg la ñu ne sunna la du dëgg mm, bi defee loolu Karbala ak Medina alxuraan rek moo sawee te li sawee alxuraan mu ci jamono Ousmane bi ko bindee dañoo yónni dañoo yebal ci région yi chef de région bu ne benn alxuraan authentique bu jógee Seydina Ousmane nekk fa comme Caire Yaman euh, yeneen réew yoo xam ne islam yeggoon na fa jooju jamono dégg nga comme waaw léegi nag ñoom dañuy tromper ne nii pour wax la ni lii ñuy wax mooy hadis du dëgg loolu du sunna ñoom la ñuy wax du sunna dañoo réer daal dañoo réer réeral waaw te parce que wahhabisme boobu li ko waral même bu tubaab yi gasee bi ci arabi Saoudite ñu ko gasee dañu ne nañu créer benn nouvelle religion boo xam ne dafay tollook protestant yi parce que ñoo américains ay protestant lañ ñu bëgg a créer ci l'islam protestant ñu ne alal jii di génne na ci am loo xam ne day dem ci réew yi ñu jëndal ñu ay pajero jox leen ay xaalis tabaxal leen ay institut toujours institut bi day ànd ak villa bu rafet boo xam ne waa ji moo fay nekk jabaram ak doomam waaw ci yoo xam ne amuñu woon dara mënuñu am vingt cinq ñoo nag bu ñu waxee seen petro pétrodollar yooyu moo leen waxloo waaye waxaluñ yàlla waxaluñ yonent bi ndax euh, ñi ñuy def référence ay ibnu taymiya ak yooyu mais ñooñu am na junne at kenn musu musuñu kenn musa wax jàng seen téere di ci di ko jàngale bi alal ji ñëwee pétrodollar yi ci lañ commencé wax Ibnu Taymiya kii baaxul nangam nangam ki naan la Tijaan baaxul ki ne la Murit baaxul ki ne la Xaadir baaxul loolu yëpp nag léegi ne nañ baax na parce que ñi leen doon waxloo ci nii ñoo leen waxlawaat ci ne dañ leen ne na ngeen mel ni suufiyee buñ dégg kenn ci yéen xas suufiyee kooku dana am problème loolu nag moo waral bind naa benn article tuddee mu ngi tudd double allégeance wala le double jébbalu mm-hmm. des ibadu et des et des et des salafistes